asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy suivre seen seen sama xalaat di leen di baax a baax euh, tey nag professeur dañuy ñëw ci huile essentielle boobu dañoo bëgg ginnaaw bañ la nuyoo nga wax ñu euh, nan lay jariñ mhm. te huile essentielle bu disponible la naa garab ko xam mhm. mais huile bu ñuy jaay jaay la fii la waaw mhm. ñu wax ñu ay ci wàllu wér gi yaram waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku internet yëpp waaw anis vert bëri na fi boo demee ci ñuy jaay huile essentielle yi même garab gi sax am na fi dañ koy jaay boo demee huile ah, anis vert laa bëgg mhm. huile bi am na fi garab bi am na ñu koy jaay noonu aussi boo ci bëggee kilo wala liibar mhm. dinañ la ko jaay ci jaaykatu yenn garab yi surtout mhm. du ñëpp ko am nag mais huile essentielle la boo xam ne moom dafa dafa fort aussi dafa dafa un peu toxique dafa xaw a toxique moo tax ñu koy utiliser ñu bari bañ a leen indil yenn conséquences yi. Mm-hmm. Euh, ci ni ñu koy utiliser moom kese kese mooy li ñu doon wax rek. ci début bi ni huile essentielle. Mm-hmm. kenn du ko utiliser moom kese. Mm-hmm. da nga koy jaxase ak leneen. léegi nag bii nag daf ñu ko gën a mën huile essentielle euh, anis vert. ku ko utiliser moom kese kese mën na dem ba indi la ay paralysé. wala ba indi la ay problème mu nerf. donc gis nga. moo tax daf fort à forte dose. dafa toxique. donc moo tax boo koy maasee wala nga di ko naan. toujours dafa am loo koy loo koy boole moom dina bokk na ci day joxe appétit maanaam ñi nga xam dañoo manqué appétit mën nañ koy utiliser buñ koy utiliser di dinañ am appétit ñi nga xamante ni dañoo amee ballonnement aussi mën na leen a saafara ñi nga xamante ni dañuy am des règles douloureuses jigéen ñi xam ne bu ñuy gis euh, mbaax day metti ñoom it mën na buñ koy utiliser mën na leen a saafara ci loolu ñi nga xamante ni dañoo amee asthme wala crise d'asthme bu crise bi ñëwee wala bu ñu sentiree ni crise bi mi ngi waaj a ñëw parce que asthme am na ñoo xam ni eh, bu ñuy waaj a am crise bi rek dañ ko sentir mhm. soo ko defee mën na dem ba crise boobu dootul ñëw wala bu ñëwee dootul la sonal ñi nga xam ne dañoo amee migraine muy boobu buy metti di leen faral di daal lu ci bëri mhm. bu ñuy utiliser anisivir boobu mën na leen a saafara faat mhm. di ko naan ak di ko maase seen seen bopp yi quoi ñi nga xamante ne dañuy amee les coliques muy genre biir bi métti moom it bu ñu amee anis mën na leen saafara ci bu baax mhm. ñi nga xam dañu amee palpitation palpitation suñ ko mhm. waxee mooy fit bi tëf tëfi nga xam ne day mel bi day tëf tëfi noonu parce que xam nga Sénégal moom ñu bëri jànguñu français soo ko waxee noonu mën naa am duñ ko comprendre mais boo ne firi tëf tëf yi am ñam sax te loolu la ñam am suñu Sénégal day mel ni tëf tëf loolu lañ ko xamé loolu lañ ko xamé wax kay légui loolu lañ ñu wax palpitation am ni mi batteré moy gaaw loolu lañ ñuy wax palpitation loolu aussi une huile essentielle à vert bi bax na ci ñi xamé xam ne dañu amee problème mu sëqat aussi huile essentielle à vert bi bax na ci aha ñi nga xamé ne dañuy amee vomissement manam di di waccu mhm. waccu bu bari mhm. momit baax na ci. ñi nga xam ne dañuy faral di tiflu tiflu lu bari. waaw moom baax na huile essentielle baax na si ñoom. Mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ni dañuy am doom mais suñu amee doom seen ween du am soow ñoomit bu ñu utiliser huile essentielle bi mm-hmm. ansiver bi soow bi dina yéeg ba bébé bi dina mën a am euh, ki mm-hmm. dina mën a ama euh, soow donc yooyu daal la xam ni huile essentielle ansiver euh, am na ci ay njëriñ yoo xam ni yooyu mën na ko saafara incha allah loolu moom am na solo macha allah mm. mm. te disponible na ñuy jaay euh, aram yeeg yooyu ñi ñiy jaay rek bio yi waaw bio yi waaw toujours euh, yàgg naa yàgg nañ ko tegtal defe naa bu fa demee muy kaas ak ñoom Marietou ak ñoom Mansour defe naa mm-hmm. Gédo mm-hmm. ba bëri daal ñiy jaay ne tabe ci internet huile essentielle Sénégal wala Dakar ñu koy jaay ñu bëri dinañ génn dinañ génn ci internet bi tey gars yi comme dañuy livre rek mën nga commandé ñun la sa kër léegi sax mën ngay dem di leen wëri sax boo wëri waaw waaw mel ni ëttu nature boo fa contacté ñu livre sa ko livre la waaw voilà comme noonu professeur xam naa daa yow comme d'habitude rek ñu ko xam ne du sotti ñu bàyyi la nga nga tàggatoo xam naa tàggatoo bi tam comme ñu fàttali rek euh, muy ni ñuy utiliser huile essentielle waaw ni ñu koy waxee rek euh, huile essentielle toujours waxoon nañ leen ko mais tey moom particulier parce que wax nañ leen ni huile essentielle antisibère bi c'est que utiliser moom kese mën na la indil yeneen jafe-jafe yi donte mais huile essentielle yàgg nañ ko bu fekkee problème mu massage la da nga koy massé sa sa sa tànk wala sa bopp wala yaa xam fi nga ko bëgg a massé da ngay jël huile essentielle bi ak beneen huile boo xamante ni eh, mooy mooy bi la neex maanaam huile d'olive exemple ko nga jël euh, huile essentielle bi boole leen. Mm-hmm. massage di frotter bu fekkee fii ngay frotter wala loxo yi wala tànk yi yaa xam. Mm-hmm. su dee massage su dee lu ñuy naan aussi waxoon nañ ko toujours. Mm-hmm. ngay jël sa benn élément boo xamante ni lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la. su dee ndox la baax na su dee lem la baax na bu dee suukar la baax na bu dee mburu la baax na nga def ko ci. doo koy doo koy lekk noonu. mais kenn du ko jël moom kese kese kese noonu. dañ ko jël directement dañ ko jël directement. leer bu fekkee xale yi tamit ñuy wax ne xale yi ndaw yi éviter di leen koy di leen koy jox ñoom bokkuñu ci huile essentielle yi yamagul cinq ans six ans yooyu da leen di bàyyi ci huile essentielle buñ koy buñ koy utiliser mhm. donc loolu daal mooy recommandation yi d' accord mhm. leer na macha allah kon professeur ñu lay remercier merci di jox ñuy euh, suivre ci bi di ñëw incha allah